Bonjour chers internautes du ballon rond dal leen ak jàmm bienvenue dans votre revue revue sport fi koy dooree mooy sunu équipe nationale lii de xam nga ni vendredi bi incha allah rabi Aliou Cissé na la def liste des vingt cinq ou bien vingt six joueurs yi nga xam ne war nañ fubal match amical yi nga xam ne ñoo ko nar amal mois de juin. match bi gën a fës mooy match contre Brésil bi nga xam ne war nañ ko football fële sa Boston waaye jour bi di Boulaye Dia moom dafa nar a parce que dañ ko war a opérer si genou gauche bi bi nga xam ne amoon na ko si maanaam match bi nga xam ne ñoo ko doon fowoon ñoom ak lii di lion waaye euh, dina boobu moom moo tur blessure boobu dina tolloog lu mat quatre semaines suñu zone U17 bi nga xam ne moo gën a fës maanaam si Coupe d'Afrique bu ñu jógee mooy kii di euh, Sëñ Fallou Diouf bi nga xam ne moo dugaloon suñu final bi maanaam planti bi nga xam ne moom moo sauvé Sénégalais yëpp moom nag gis nañ ko nag mu sol benn maillot fële best 3 nekk fële sa France est-ce que maanaam dafa nekk pour jouer benn tournoi de détection peut-être waaye en tout cas daal gis nañ ko daal mu daal di sol moyo boobu la ñu koy ñaanal bu baax a baax bon vent. bu ñu demee fële sa extérieur fu ñu koy njëkk dooree mooy foofu sa Angleterre maanaam ñoom fu mu doon nii ñoo ngi sargal maanaam képp ko xam ne mooy jour wala ay coach meilleur coach de la saison nag su nekkul benn surprise Pep Guardiola moo nekk meilleur coach de la saison 2023 2022 2023 Marco Asensio est proche de s'engager avec Aston Villa moom nat fu mu toll joueurs yi ba équipe yi bari bari ñoo koy gi gannaaw démb ba ñu waxee Paris Saint-Germain tey ñoo ngi naan Aston Villa maanaam équipe anglais yi daal lu si mel ni Chelsea moom tamit bàyyiwul kii di Asensio pour monter ti mën ko récupérer foofu sa France, Ashraf Akimi ne se sentirait pas à l'aise au Paris Saint-Germain et voudrait quitter cet été. mu nee na dafa bëgg Real Madrid bu mu jógee woon ñëpp Achraf Hakimi ak Real Madrid ñoom ñëpp xam nañ seen histoire donc looloo taral moom daal dafa bëgg delluwaat foofu sa Real. Real moomu lay ba moo tudd dina perte numéro 9 bi di Benzema xam a proposé à Karim Benzema un salaire de 100 millions d'euros net d'impôts 100% de ses droits de l'image, le choix de son équipe dans le championnat, le choix de sa résidence privée. Karim Benzema aurait également un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2030 joueur bu leen neex ñu indi joueur bu leen neex gannaaw Messi Cristiano Ronaldo Benzema ñu wax sax naa ak kii di Sadio Mané mbokk internet yu Wassare Sport li leen doon tey seen biir biir revue sport di ndox di daje ba suba incha allah.